Donc, salam alaikum, info.com. Aujourd'hui, on est là au niveau de Payat euh, pour assister à sortir album de MC Njol, du label Rock Music. Aujourd'hui, on est euh, avec euh, un très grand artiste, qui on le présente, plus sceptique. Donc, sceptique aujourd'hui, l'annonce c'était Wi-Fi au niveau de Payat. Hip-hop, hip-hop. Njol, Njol c'est un frère, artiste, artiste complet bu génnee album donc euh, album géejuwaay la album Dakar la ñun ñop ñoo bokk géejuwaay bi euh, Ndiol artiste la boo xam ne suy waajal dara day jël téléphone am woo donc je pense que la moitié ou les trois quarts des gens qui sont là ndjol jot na leen téléphone directement et ça c'est un geste d'humilité bo xamné lo loo mënti def instant yi day diñ ko bàyyi pour ñeu déglu album bi jënd ko support et puis c'est géejuwaay géejuwaay mo tamit tout ce qui se passe avec des artistes qui habitent à Guédiawaye nous on sera là pour supporter inchallah ok donc on voit que l'album euh, balaa Yagna, trop Harvi, Yagno, aujourd'hui par rapport à la première impression par rapport au jog label bi ak sortie album c'est la première impression par rapport à cet album là mais c'est un album c'est le genre d'album que nous on va écouter une deuxième génération avec hop bi lañu old school la Mouiman, muy man muy Kalif Kalif bok euh, na projet enregistré album direction artistique c'est le genre d'album que nous on peut écouter quand tu as atteint un certain âge tu as ay track yoo xam ne mënatoo donc euh, quand tu écoutes un artiste comme Ndiol ça fait plaisir parce que booy le été ay développé ay un moment. ça c'est important dans ce hip hop aujourd'hui c'est important que nous ñi c'est bien faire le show et tout ça mais c'est important aussi de véhiculer des messages tes album bi 15 tracks le xam la plupart des thèmes, c'est du social, 80% social. Et ça, c'est très important pour la nouvelle génération qui arrive, Inch'Allah. Ok, merci sceptique Moi, on une impression par rapport à sortir album. Au niveau du paillet, sorti album euh, Mr. de Rock Team Music. Donc, nous avons fait ben ndanan. Muy ada ada tay sa impression par rapport à sorti album Mr. Ndiol be ak sa tay. salam alaikum d'abord ma ngi nuyu c'est un yépp. Euh leen wax bon dama ñëw support sama benn jeune frère benn gain bu am talent benn gain bo xam xamna ko depuis jamono ji muy battal si ay saayfa laa ko xam je l'ai toujours respecté en tant que rappeur en tant que MC en tant que nit tamit parce que ñet yoy fa mu bolé quoi loolu dafa woté bon la moindre des choses moy ñi nga xam xam nañ ko avant muy euh, grand public bi diko xam Té ñoñu ñi ngi fi quoi Ñoñu ñëw nañ wuy si ko ça veut dire que amna relation yu nice ak ñi nga xam ñoo fekk ay début quoi loolu moom and ànd fii ba paré si kaw loolu talent bi tamit parce que nit bu am talent la moo tax ñu ñëw may ko doolé quoi en tant que ay grand frère am loolu mo ñu fendi quoi. waaw d'après quelques tracks yi nga ci jot déglu yi ngi ci ay 1 minute 30 donc sa ban impression globale ngay def par rapport ak album track yi jéem leen déglu sax track yi jéem leen déglu sax njool la quoi en fait sax loolu may déglu ay track pour xam ndax dina def nice quand même xam nit xam nit da nga nit dafa am ay bo bo xamé rap di nga xam kan mo am potentiel def lu nice ak ko xamné mu lernal bu album day tané mba du nyal da dafa mbapat comme li ma leen wax sank rek njool dafa mbapat ci rap mbapat bi mooy dafa def ay sayfa def ay battle battle ku wóolu sa bop amo talent do ko def di def do ko def ba pare do ko def di gagner gagné njool dafa gagner ay sayfa ay battle fep ci Dakar hors de Dakar xaw mais fep si Dakar gagné na fa saay dem na fa saay ko dafa mbapat si rab kon bu génnee album limay wax kañ moy lenn limay may yaakaar kañ mooy lenn est-ce que dina neex grand public bi mais ñi nga xamné ne xam nañ rab dina leen neex quoi ñi xam rap di dund rap di dundal rap ñoñu albumu njool par force dina leen neex mais grand public bi lañuy wo ñi nga xamné xamuñu rap ñoñu après combat bi moom mu def mu def le maximum pour Euh, produit bi egg si ñooñu quoi mais ñi xam rab njool soxlawul mu leen di defal promo quoi na leen wax ne damay génn rek gars yi ñëw jënd quoi. Eh, c'était le propos de Adam moom tamit mu pour support Ndior donc nous xaar Donc, donc alaykoum Khalif. donc nous bëggoon am sa impression ak sa teewaay lu ko waral au niveau de Payette pour la sortie album euh, de de Ndior de de Rock Team Music. ok Wa alaykoum Salam. maa ngi du nuyu di nuyu équipe donc di nuyu mbooleem euh, euh, ñi ñuy suivre. Donc, euh, nice. Donc, euh, euh, c'est ma présence fille. Euh, c'est très normal, c'est très logique. C'est-à-dire parce que produit euh, moi, j'ai une direction artistique, tu vois un peu. Donc, parce que ben boy, moi, j'ai suivre depuis ses débuts avec Légui. Et euh, def moom aussi mu yag bëgg les tu vois un peu donc n'est que si projet bu mel nii dañ ci àndoonoo Le euh, label bi ko produire muy Rocktin premier produit faut gagner, c'est un produit qui mooy lire en 2015 tu vois un peu donc tu vois que c'est la famille on se retrouve tu vois un peu donc comment on va xam surtout côté lyrical parce que damay def des atelier d'écriture un peu partout au Sénégal donc suma ma ben jeune bo xamné amna ci mom yakar manam ci côté comportement mom ni mu mel euh, ambition bi mu am ci musique ak talent bi mo am donc euh, fierté lay nek ci liggéey donc euh, sama présence fi ñëwuma en tant que invité wala ñëwuma en tant que donc je fais partie en fait de ce produit donc loolu motax ñu né fi mu nek nak fierté ci man parce que bon ñun lool la ñun liñ fi bayyi moy tay moy légué ben héritage par rapport ak benen génération bi di ñëw mais mu fekk ci artiste yi nga xamante ne y a un minimum de de de talent bu nek ci ñom amna aussi ben ambition bu nek ci ñom donc, Calif, euh, au nom de toute l'équipe les ses septique gars yëpp ñoo ngi fii ne si ginnaaw ñoom Kalash waa Ndechif fi donc dañ ñëw pour support suñu rakk parce que xam nañ ne moom ngi wéy bi donc euh, pousse mu dem la dem parce que ñun bi ñuy toog di représenté Guédiawaye à l'époque euh, artistes yu bëri yu dëkk Guédiawaye ñemewuñu woon fësal loolu tu vois un peu donc ñun on a on a toujours représenté Guédiawaye depuis son début donc fierté la tey ñu gis ne tey relève bi am na koy jël donc alhamdulilah quoi. waaw qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que directeur artistique ak album bi lan lañ ci mën a xaar ak euh, lan mooy objectifu album bi quoi musicalement ok musicalement déjà album a une diversité ci côté sonorité a une diversité Nous, euh, bëri peut-être ci côté musique Findon haré doon Boy, bi album bi est nekk parce que Boy, la certes il fait partie de la nouvelle génération mais musicalement a une maturité ci côté sonorité a une recherche mais un commun, donc album classique là xëj euh, na benn son moo siy nekk ay euh, loo xam couleur nouvelle génération bi la mais album yëpp c'est classique par rapport au texte aussi parce que li ñu remarqué actuellement dafa am ben, benn euh, maanaam bind dañ ko xaw a négligé hip hop Sénégal muy jeunesse bi muy même old school yi gën a bëri bindatuñu donc booy bi ñëw bind ci benn niveau boo xamante ne mën nañ ko tappal tey le lyriciste parce que l'album SOKO ko déglu à tête reposée da nga xam amna contenu du clash du égotique du dara mais amna contenu c'est-à-dire c'est sans les koo xamante ne sa écriture dans direction dans contenu ba pare da ngay respecter norme poésie aussi tu vois un peu donc boy bi il a réussi à le faire ci album bi donc euh, lolu rek déjà particularité la par rapport à album yu bëri yi génn ak yi di waja a génn tu vois donc euh, ñun tey fierté la ñu liggéey ci album bi euh, waaw sant yàlla bu baax tamit parce que hip hop lañu yàgg a dund suñu gisee benn jeune bu mel nii aussi xama ñëw teg mel nii te man yàgg naa ko fii lan sérieusement parce que talent moom yàgg naa boobu kenn xamu ko dama wax naan bi moom dina dem fu sori quoi moom ak ñeneen ñoo xamante ne détecté naa leen biir géejoo ak feneen euh, donc su ma gisee moom aussi mu sollicité ma si yenn affaires yi donc sant a été bien travaillé Donc, Alhamdulillah, quoi. Ok, merci Khalif, nous le remercions beaucoup. Donc, euh, c'était le directeur artistique de cet album, Moron Wahnini, Mouy Khalif, nous le remercions beaucoup. Toujours, nous avons fait la période sortie l'album Mustanjol, nous avons fait euh, Sister Rama, donc, nous avons fait Espérance FM. Donc, Rama, en tant que c'était, en tant qu'animatrice, donc, l'an ngay wax ci sortie album bi, ak par rapport ak track yi nga jot a déglu, lan ngay wax ci Njol, quoi.

Euh, li ma am pour wax ci album mondial bi franchement album le bu riche en lyrique album le bu riche en parole te cousi ci boo ko toogee déglu li nga ciy jàng dina bëri en tant que jeune da fayé ay moromam da yé ay moromam bu ba parce que liñ ci wax bëri na donc bo xolaté bo xol bo mené bo bëggee yédat sa bop ci àddina deglu album bi di nga comprendre yu bëri donc euh, je pense que wax nga album bi riche na trop par rapport lyricalement affaire yoy donc yow lan nga est-ce que li nga don xaar ci album bi ak li nga don xaar ci ndjol par rapport ak xaar biñ ko xaar album bi yàgg na trop donc est-ce que lolu gis nga ko tay quoi. non franchement pour du vrai de vrai man j'étais surpris j'étais carrément surprise parce que li mo don xaar ak li mo gis dafa wouté ci beneen façon laa ko xaaree woon mais fi mu ñëwee maanaam boog jëfinu taalibe la ñëwee dafa ñëw wàcc ànd ak suufe ak dal parce que bëri na fi artistes yu bëri ah ay rapport yoo xam bu ñu ñëwee dañuy rëpp rëppi am lu ñu soloo mais moom da nga koy gis automatiquement xam ne carrément kii Baye Fall la te li mu woy ci album bi da ko wuyoo te dafa wuyu turam tamit. ok merci Rama donc moo ñu doon jox ay impression par rapport ak sortie album Mr Ndiol.